jërëjëf mbokki internet yi nga xamante ni yéen ñuy baaxoo di safa fii si Bprod Média amaat mbegte ak contentement comme ni ñu koy defee saa ne tey nag ma ñëw ba Medina seet si un jeune ndaw la boo xamante ni mi ngi bay waaram ci wàllu musique waaye ku xool kanam bi dina am loo ko mën a ràññewee gën ko xam si Ndiaye l'unique waaye tour dum dëgg di Bamba Xaadim Rasul ndeysaan di yaakaaru jàmm ñi Bamba maa ngi lay nuyu di la ziar. bàyyi la nga nuyoo moo ko internet yi lay seetaan sur Bprod Media rek. waaw eh, eh, salaamaaleykum Sénégal ah, salaamaaleykum àdduna ah, yaa ngi am Boy Ndiaye L'Unique donc ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ah, di nuyu képp ki nga xamante ne fan Boy Ndiaye nga di nuyu sama yaay booy bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal jàmm bépp képp kuy doomu aadama di nuyu waa Bprod Media donc ñu ngi leen di shout bu baax a baax a baax a baax walla Boy ku ne xam na Boy Ndiaye du tamit defe naa ne tuur musicien la wala dara ñu lay woowee Boy te Xaadim Rasul ma tudd Boy Ndiaye bi fan la jógee uniquement. <laughs> Boy Ndiaye moom suñu ma suñu ma laajtee fi mu jógee damay damay sawar di ci tontu tu vois parce que bon yàlla dafa dogal ma nekkoon xale ah nekk nekk à Grand Yoff ah, nekk xale boo xamante ne xale bu dëgër bopp laa. ah bu bu turbulent boo xamante ne damay xëy di xeex suba ngoon guddeeg bëccëg ci waa donc euh, tout le temps dañ may dañ may kalaame ak sama yaayu booy ah donc sama yaay dem ba ne ma xaaral fii léegi kenn dootu la fi wax xaadim tu vois donc léegi yow boo njaay lañ wax léegi boo njaay boobu dem ba ba commencé law ci kër gi ci koñ gi maire yi léegi ko wax mu ne la boo njaay boo njaay boo njaay tu vois boo njaay noonu dem ba neex ma à un temps avec avec avec le temps donc euh, musique bi nekk ci man ma di ko exploité ndànk-ndànk ah ma ne pour pourquoi pas ma jël Boy bi def ko sama tur artiste dégg boo déggee boo déggee l'unique bi nag c'est parce que je suis fils unique. yeah je suis unique. ba pare. Mhm. sa yaay xanaa Xaadim la di wooyee <laughs> naan Xaadim bon foofu moom euh, nekkul question ci sama yaay sax mais ci sama papa la ndeysaan sama papa la di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana bu baax a baax a baax a baax. donc sama papa moo doon ñaan yàlla ko xamante ne dina ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul balaa moo génn àdduna. ah moom loolu doon ñaan yàlla suñu borom donc yàlla eh, dogal man ma ñëw gane ci àdduna mu tuddee ma Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul donc nag sama yaay bon moom comme que sama tur bi macha allah turu sell la ah. donc dañ koy ormal ba du ñu bëgg wax xaadim di si teg yenn yi parce que hmm. d'habitude d'habitude ñun ñun ñun ñun borom turu sell yi xam dañuy xaw a doy waar et tout like dañuy xaw a doy waar donc moo tax. du bëgg jaar ci xaarim bi di wax lu ko neex wala quelque chose comme ça donc day naan Boy Ndiaye léegi Boy Ndiaye bi nag dem ba law ngay Boy bi dem ba neex ma ma ne bopp daa mi jël Boy Ndiaye bi rek def ko sama tur artiste. lii noonu li mel wax dëgg la ñoom Mamadou ñoom Doudou. Mhm. ñooñu ñëpp dañuy dëgër bopp. ndeysaan like like ndeysaan te mhm. mais mi ngi mhm. nga jël li nga xamante ni mooy di turu. Ndiaye unique. like Ndiaye unique. kañ nga tàmbalee dugg li nga xamante ni moo di aar. commencé wàññi. Mhm. bon euh, ba ma tàmbalee dugg ci ci musique nag euh, je pense que c'est c'est à 2009. ok yeah 2009 laa xam ne man am na loo xamante ne suñu borom dimbalee na ma ko. ci ci wàllum ci wàllum wëy parce que dama doon woyantu instant yooyu laa tàmbale di wëyantu tu vois di wëyantu di wëyantu amour bi dem di màgg ak man et tout donc en 2015 je pense que c'est là njëkk a dugg studio E, en 2015 laa njëkk a dugg studio di di di di foofu noonu et cetera xam nga mais amoon single ok tu vois amoon single dama doon ñëw studio di fa fréquenter xam nga des fois bu ñuy woy yenn artistes yi bu ñuy woy xam nga xam nga sama voix xaw am leen lu mu leen jox ñu ne pourquoi pas nga ñëw dugg am lu ndaw loo mu defal affaire yooyu noonu noonu laa débuté noonu laa débuté ba tey jii nii macha allah. 2009. ñu mu la ràññee. muy dëgg. xaw a mu boo wayee mu fu mu yóbbu gars yi. te muy dëgg sa digganteeg <laughs> yeah like. sa digganteeg Jeeba. <laughs> Mm-hmm. yéen mm-hmm. mu war boppam ci yow. te muy dëgg ah bon Jeeba Boy. Euh, man ak moom sax ba ñu ba ñu ba ñu xamante yàggul yàggul yàggul yàggul noonu donc euh, ci année bi ah ci 2023 bii la ci 2023 bii la parce que boo xoolee dama nekkoon Grand Yoff di woy ci anniversaire yi wala quelque chose comme ça parce que man damay bëgg di woy ci anniversaire yi di bëggeel xale yi tu vois parce que man dama am cofeel ci ci xale ak ci jigéen waaw man loolu la ma yàlla bindee ci waa donc euh, su ma demee ci anniversaire yi di woyal xale yi xam nga en le fait que ñuy gis Simone Djiba wala quelque chose comme ça xam nga xale yi ñoo koy wax da nga diroog Djiba wala quelque chose comme ça en fait dañ leen naan pour nga woy leen woyu Djiba comprendre nga pour nga woy leen woyu Djiba léegi nag bon je me suis obligé mooy defal leen li ñu bëgg xam nga woy leen woyu Djiba woy leen ko ci ci ci xol bu sedd comprendre wéy leen ko ak yéeg-yéeg tu parce que lépp looy def da koy yéeg xam loo yëgul rek doo ko def tu vois donc looloo waral may may gën di faral di jouer saw jiba boobu noonu bon loolu noonu nag dem balaaw tu vois am benn grand boo xamante ni ñu koy wax grand àlla mm-hmm. tu vois grand àlla di ko nuy de passage mu nekk sama grand bu baax kooku moo tax ba ma dem gisante ak jiba yeah kooku moo tax ba ma dem gisante ak jiba parce que jour concert u bi amoon grand théâtre grand théâtre donc dafa amoon Euh, ki ñuy wax grand babo grand babo moom si structure jibaa bi la bokk di ko nuyu de passage mu nekk grand bu baax vraiment. di di ko tabe. yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla fay xolam donc grand babo moom moo ma ne moo ma jël présenté ma foofu noonu jibaa et eh, ba mu ba mu présenté foofu noonu ci après nag au retour mu ne ma léegi dañ lay jox invitation comme ça nga jéem a ñëw kër ga comme ça ñu gën a toog gën a waxtaan tu vois et eh, ko d' accord problème donc quelque temps après mu jox ma invitation mais mu jéewuñu woon dem parce que dafa dafa tardé woon comprendre nga dafa tardé woon peut-être gars yi dañu xatoon wala quelque chose comme ça après ki ñuy wax grand àlla muy doomi grand af di ko bëgg koo xam macha allah donc grand àlla moo ma jël ne ma. faaw ñu dem ci ci jiba tu vois faaw ñu dem ci jiba moom moo ma jël yóbbu ma ba ci jibaa ba mu yóbbee ci jibaa nag bon ñu toog waxtaan et tout jour bi nga xamante ne toog naa ba jaaxaloog jiba ñu waxtaan sànnante kàddu xam nga mu nekkoon benn reef boo xamante ne nekkoon na ci man xam nga moom mu exploité ko moom jiba mu nga ko mu nekk benn fierté ci man mekk lu nekk lu ma neex ci man comprendre nga foofu la foofu laa xamanteeg jiba mu nekk koo xamante ne nit ku oyof la mm. nit ku baax la nit ku tabe la nit ku yaru la Djiba yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla fay xolam yëg-yëg boobu noonu laa am tey jii nii ba en fait xale yi ku ma wax wéyal ma wuyu Djiba rek en dama la koy defal ak plaisir parce que man Djiba dama ko bëgg comprendre nga Djiba dama ko dama ko bëgg dama koy suivre dama dama ko dama ko bëgg trop. <laughs> yeah like <laughs> bon loolu moom xëy lu yàlla suñu borom dogal la comprendre nga parce que man bon samay style ba ma koy ba ma koy amal sama bopp jibaa taxul woon parce que boobu xamante wu woon sax ak jibaa xëy na li lii la yàlla di dogal quoi tu vois xëy na lii lii la yàlla dogal donc def na ko nii waaw moo tax gars yi di gis man jibaa wala quelque chose comme ça. ba tax na tay tey vendredi bi am nga la war a génnee. Mm-hmm. lay loo ci ci jibaa nga ko jëlee. <laughs> joxaat askan wi. dèjà defe naa ne way wu neex woo wala jibaa wayoon fan yee. yee calm down yee calm down tey la war ñu ko may. <laughs> ndeysaan tey la war a génn. Mm-hmm. waaye. Uh, annonce bi gars yi ñamal nañ leen ko. tamit dëgg waaye ko ñamal. yee like like tamit dëgg <laughs> dëgg incha allah. bon uh, calm down bi hommage la bu ñu defal uh, grand jiba mm-hmm. donc. Euh, jour bi ma demee kër Jiba ba seeti ko. Mhm. li tax ma gën a def hommage bi ak li tax ma gën a am yëg-yëg def hommage bi nii. Mhm. ak li tax ma gën a sawar ci def hommage bi nii mooy jour bi nga xamante ne dem naa ci kër Jiba. Mhm. ndeysaan accueil bu généreux bi ma Jiba accueillir dafa dugg ci ci salle bi xool ma ree. ok xool ma ree xool bi sedd bu ñëw akolaat ma. akolaat mu ne mu ne mais eh Djiba mais Djiba si loo nekk maa ngi si jàmm mais maa ngi gis affaire yi mu ngi nice mais vraiment kontaan naa ci yow sama xol sedd na en fait accueil bi ma accueil noonu dafa am lu mu def ci man ba ma ne kii faa ma rendre ko hommage parce que dama ko yëg ba ma gisee daf ma yëg yëg-yëg boobu noonu mu am laa xamee ni kii nii foo jaar ma rendre ko hommage. ok ak xale yu ndaw yi tamit ñoom gën nañ boo bokk ci li nga xamante ne li tax ma def def hommage boobu noonu parce que xale yi tout le temps dañ may naan wéyal ma wuyu jubaa wéyal ma wuyu jubaa wéyal ma wuyu jubaa comprendre nga après man ne noo ñii faaw mu defal leen benn hommage boo xamante ne xam nga dinañ ko partager ak sénégalais yi dinañ ko yor te jibaa aussi accueil bi ma accueil nii ba mu sedd sama xol nii awma lu ma ko fayee awma lu ma ko fayee musique laa am sama voix laa am macha allah comprendre nga moo tax ma ne kii fa amu rendre ko si hommage. looloo waral hommage boobu noonu. kon tey yow amoo jafe-jafe di ko wayaat. ñenn ñi di leen si plainte wala di leen indil ay jafe-jafe. non non non non amu boobu noonu non non parce man en fait Djiba dama ko ne cover bii nii calme down bii faaw ma faaw ma wayaat ko daf ne vas frère. yow da ko war a wéyaat te da ko war a wéyaat wéyaatal demal moom moo ma jox autorisation boobu noonu tu vois ne ma wéyal defal loola neex frère loo def neex na waa structure am ñoom grand babo ah, ñoom grand jibi ñoom ñëpp ah jibril ñoom ñëpp di leen shawdat bu baax a baax a baax ñoom ñoo ma jox fa weer bi ne ma frère defal loola neex yee yëg-yëg boobu noonu ñoom ñu am ci man yëg-yëg boobu noonu laa leen delloo ba rendre leen hommage bi nii yee génne dina génn ci kanam gaa yi maa ngi leen jox rendez vous à de vingt heures incha allah xaar cover calm down bi incha allah maa ngi seen kaw. ñamal tuuti. avant li nga xamante tey ma bégal la tey ma waan la tey ma wax la yaa ma gën a xam waay li nga may def su ko bàyyiwul di ma mës a rey doomu jàmbur waay yow yaa ma xam. xam ma bu baax balu xasan ci man loxo keneen wakeesu ko guddi gi jot ba lépp ni seelaw nga daagu ndànk ki ñëw sama kaw di ma ee yaaw say keseŋ keseŋ tere ma neelaw yaa ma mën a xuloo te xam nga du ragal yaay assuur mi ngi <laughs> defe naa ni xale la waaye. bu gëm boppam la. Ndiaye koy wax sax. unique moom foo ko dégg. <laughs> waaw gis ngeen te muy dëgg. muy def lu neexam. Mm-hmm. en plus ñu ngi gis ñi nga xamante ni mooy say activité yaa ngi mm-hmm. bi xat na. te muy dëgg. décembre bi xat na trop xat na trop gis nañu fan yi nag say image. Mm-hmm. yooyu musicien di dund. di dem des fois di am ay jafe-jafe. si ay géew. Ndiaye dal na la. waaw. ci laa dëkk. ok à ci laa dëkk <laughs> jafe-jafe yi noonu. <laughs> jafe-jafe yi ci la dëkk. des ci la ñu dëkk ci la ñu dëkk donc yooyu amaana su ma koy wax sax sama xol mën a tooy parce que ñun en fait ñëwuñu tëb tëb nii rek xam nga tey jii toll ci benn niveau bii nii dañu galéré rek yee dafa métti dafa métti li ñuy def dafa métti te aussi nga nekk xale nekk ci yoon en fait. gisoo kenn koo xamante ne taxawu na la à ce pour booster la comprendre nga yow yaa nekk ci yoon yow yaa xam li nga bëgg yow yaa ciy dem ba jeex comprendre nga yow yaa ci dem ba jeex ñun xaaruñu kenn ci lenn tu vois xaaruñu kenn ci lenn ñun ba ñuy def musique ba léegi ba ñu xamee di def musique ba léegi ñun la ñun ñooy daw ñun ñooy lijjanti suñuy bagage ñun ñooy gérer bien vrai que am na ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne ñu ngi teg loxo xam nga sant yàlla bu baax a baax a baax mais lépp ñun la lépp ñun la ba pare donc jafe yi si la bokku jaay jafe-jafe yi si la bokku saa yi. man metti la nga dem tey ñibbi kër ga waxtaan ak seetu ne tey est-ce que tey tey tey bi ñu ma jànni nii est-ce que ma bàyyi ñibbi lii xooli leneen. yeah bon ah je dama nekkoon mbuur mbuur waaw nekkoon naa mbuur mhm. tu vois di dem studio boo xamante ne mu ngi côté Joal bi ñuy wax Nianing. tu vois 3T di leen shawdot bu baax parce que tamit foofu jaar naa fa maa leen di shawdot bu baax a baax a baax a man dama doon jóge Mbour di dem Nianing mais en fait du ma du ma am paas bu ma yóbbu comprendre nga pour ma am paas bu ma problème la léegi damay jóge Mbour di dox dox ba Nianing pour dem studio pour mën a nekk sama liggéey dama koy def aller dama koy def retour huit heures laa doon génn sama kër comprendre nga huit laay génn sama kër dem studio balaa ma yegg si waat Mbour minuit dina jot wala su ma ñëwee damay ñëw rek sangu dem julli dem tëddi comprendre nga taawu lekk sax du ma ko am parce que ñun dañoo toog journée lëmm joo du ñu lekk du ñu naan en fait nekkul dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko bëgguñu woon lekk bëgguñu woon naan wala taluñu woon lekk wala taluñu woon naan mais dañ ko dul am duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan comprendre nga donc dañuy obligé ñu nekk ci suñu liggéey nekk ci suñu liggéey ba lu ñu yàlla suñu borom jox ñu jël am benn jour nag bon ma jógee studio ay 23 heures yooyu noonu war a ñibbi mbuur parce que saa yoo noonu guddi woon na ay minuit une heure matin mu ngi jotoon léegi nag bon ma war a dox man kese si digg digg àll bi ah je vois <laughs> di di dem dem ba à un certain moment xam nga tase gaan benn xaj <laughs> xaj bi tàggat ji ma nag ma ne waaw li ma demee nii ci guddi googu noonu gisuma dara maa ngi dugg ci àll bi di daw di daw di daw xam nga après cela faxasalu daanu sama genou bi sama genou bi def benn góom bu def benn góom bu rëy xam nga góom noonu nag dem indiloon mu xam nga ay problème métti woon métti woon indiloon ma problème mu genou comprendre nga indiloon ma problème mu genou en fait mu nekk loo xamante ne lu mu touché la vraiment te mm. mun naa ne ci gën a ndaw ah parce loolu du dara comprendre loolu moo ci gën a ndaw loolu moo ci gën a tuuti parce que yeneen détails buñ ci naree dugg amaana sax mun naa tuur xéewal parce que sama xol dafa gaaw a tooy <laughs> nga benn géew daj mhm. fa mhm. am benn xew mhm. fekk fa ay nit. ñu lay buntu xataa. wala waaw loolu ci laa dëkk. ban jour la. Euh, am na benn Fosco bi ma doon joué euh, fii ci CM Grand Yoff comprendre nga CM Grand Yoff la fekk instant yooyu noonu xam mu ngi xaat affaire yooyu noonu ban heure lañ ma joxoon rendez vous je pense que vingt heures. oui vingt heures lañ ma joxoon rendez vous donc euh, ma ñëw à seize heures. yeah parce que man sama liggéey dama ko respecté man dama respecté ma ñëw 16h toog ànd ak sama gars yi toog si si si salle bi foofu noonu xam nga juste pour bañ a tardé pour bañ a xaar donc euh, ñu dem ba dara desul artistes yi yéeg ñu war a yéeg yëpp ba dara desul man ma joué DJ bi ñu joxoon ko sama sama son pour mu pour mu lancer ko pour ñu def suñu suñu show tu waa après ñu dem DJ bi ne moom du teg sama son. te tegu ko fenn daf ko neex rek xëy na mu waxoo. mu ne teg mu teg ba affaire yi andi woon fa ay complications jaxasoo yi xam nga ñi naan boo Ndiaye day joué xam nga ñi naan Boy Ndiaye du joué après professeurs yi ne kii fa amul joué parce que kii suñu artiste la ñun ñoo ko indi déplacé loo ko xam nga bàyyi loo ko ay activité am ñëw ba tey jii nii xam di DJ bi tegul fenn loolu mu ne soirée bi jeex na waaw nit dañuy ñëppi moom voilà du teg sama soo amul envie teg du teg et puis te nekkul loo xamante ne lu bees la foofu noonu. guddi googu nan dara daf ma yokk jom. daf ma yokk jom rek yokk ma courage parce que tamit ci assez normal ci assez normal lii par force da nga ciy jaar. parce que ci ci ci état bu àdduna la bokk ak lépp lu waaye mën a nekk ci àdduna comprendre nga boo ci nekkee di ci góor góorlu c'est normal am ñu lay jéem a xatal ñu lay jéem a et cetera et cetera loolu ci àdduna la bokk fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi nekkul man lañ ko njëkk a def te nekkul man lañ koy mujjee def comprendre nga l'essentiel mooy message bi may jox bi di ko jox jeunesse bi. si lépp loo nekk focus yi fii yàlla moom moo fi nekk tu vois yàlla moom moo fi nekk yàlla moom mooy dogal. Mm-hmm. ku si nekk si ñun ñii tey jii nii bu la suñu borom dimbalee ci li nga xamante ne moom ngay def après di nga fàtte sa démb ci lu bari comprendre nga di nga fàtte sa démb ci lu bari donc nañ kën a focus ci lu ñu nekk nañ gëm suñu bopp ku dul yàlla neen nga yàlla moom moo fi nekk. Mm-hmm. liggéey jaamu yàlla loolu kese laa mën a dénk jeunesse bi. Mm-hmm. jubal liggéeyal jaamul yàlla jeex na problème mu àdduna problème lañ ko fekk te lañ koy bàyyi teg. en boo jàppee ni yow sa jaar-jaar moom du tar yoon bi nga jël jàpp naan ne dafay échoué. Mhm. yee parce que fii fa mu métti ah. fii amul leen loo xamante ne ci àdduna yomb na. fii dafay métti ngay liggéey muy métti ngay liggéey tu ñi dañuy bëgg ñi dañuy bañ comprendre nga mais loolu noonu mënoo ci dara yàlla ji yàlla ji mi nga xamante ne ñu bind yàlla ji nekkul ñëpp ko nangul. tu vois yonente bi nekkul ñëpp ko nangul te te mooy gën di mi mm-hmm. donc man benn booy njaay su ma ñëwee di def lii ñii bëgg ko ñii bañ ko waaw mais pourquoi pas man ma koy bañ. waaw pourquoi pas man moo koy bañ mi ngi noonu gis ngeen ko. kii Ndiaye mi defe naa ni wax ni rafet na. Mm-hmm. macha allah ndax ndaw moom. su mm-hmm. nekkee si yoon noonu la. mënut a ñàkk. Mm-hmm. balaa moo neex. mu nakari te muy dëgg. te naa ni comme ni ko waxee. du ñàkk. te muy dëgg. ba dégg Ndiaye Ndiaye bu mag bi Ndiaye lu nit. Jibaa bu mag bi. te muy dëgg. ay. te muy dëgg te muy dëgg. dafa naa ne jeex na waaye. te muy dëgg balaa maa tëj rek. Mhm. ndax Ndiaye dafa focus si rap wa ilaa ci mbalax bi la gën a wane boppam. <laughs> yeah bon man sama base. mun naa ne afro mbalax la sama base. mais man aw ma en di di naan man lii laay def wala lii laay def lu ma sentir def laay def. mais sa relation ak musicien yi. waaye avec tout le monde. yee relation bu nice la am ak ñëpp ak ñëpp ak ñëpp comprendre nga même bu fekkee am na ñoo xamante ne dëgg la xamante guñ affaire yooyu man jàmm laa yéene doomu aadama yi képp koo xamante ne def nga lu nice man ma xam ne kii da kii li mu def nii dafa nice damay jël sama téléphone woo la allo mais mon grand wala mon frère mais li nga def dafa nice donc bonne continuation yàlla na la yàlla taxaw tu vois yàlla na la yàlla taxaw et cetera et ngay def musique ngay jouer série wala ak loo mën a def man. même bu nekkee sama frère nga fii dans la rue sax su ma la gisee ngay def lu nice dama lay woo la wax la ko ne ko mais frère li ngay def muy nice lan si yàlla taxaw parce que en fait man aw ma xoolu kii ñaan boobu quoi tu vois voilà te man lépp li may def dafay naturel ñee dafay naturel man jàmm laam ak doomu aadama yi ak ñëpp comprendre nga yee man na doomu aadama yi nekk si jàmm sax man moo ma gënal quoi tu vois mais dund fii Medina a yof mhm. mhm. damay dëgg waaw bon di amaguñu yenn relation yi amaguñu yenn relation yi peut-être dina ñëw incha allah parce que di bon rarement la ñuy rarement sax man mun naa ne rarement laa koy gis soit concert lay doon wala quelque chose comme ça mais quant à tooguñu waxtaan amaguñu contact yi wala wala quelque chose comme ça. yee si si si jamono yi may gën a nekk booy dama doon dem ba léegi. tu vois dama doon dem ba léegi mais bon actuellement nii xam nga ak sa liggéey tu vois voilà donc da ngay focus ci sa sa liggéey quoi yaa ngi ci sa yoon di ko gérer. yaa ngi sa yoon di ko gérer donc temps bi dootu la mayati ngay dem si yenn activités yi wala yooyu soit su amee concert invité la da ngay ñëw def li nga war a def après bu jeexee jeex na yaa ngi ci leneen. afro mbalax nga wax. yaa ngi ci kaw. di mm-hmm. te réew mi am na lu lëmbe réew mi. lay ñu la mun ñu wax ba mu jeex te luñ si jaar. te muy dëgg diggante ki nga xamante ni moo di Wally Seck <laughs> Sidi Diop. affaire yooyu njàpp dem na ci Sidi Diop jóge na ci Sidi dem na yooyu naka nga koy dundee en tant que un artiste. koo xam ni. Euh, yaa bon xam nga li jëm ci wàllu musique musique dafa yaatu. Mhm. comprendre nga musique dafa yaatu donc euh, di Diop Wally Seck wax dëgg fa ne yàlla en loolu ñoom seen i seen i problème la parce que man loolu sama yoon neew si tu vois sama yoon nekk si donc ay artistes lañu. comprendre nga ay artiste la ñu c'est assez normal mu demee nii parce que yëfu yëfu art la yëfu musique la te nii la war a mën a demee comprendre nga nii la war a mën a demee ay kanta njàpp wala quelque chose comme ça saay man ñëpp laa yéen a jàmm na ñëpp am jàmm na ñëpp nekk seen liggéey liggéey focus wala quelque chose comme ça donc voilà quoi loolu kese la man sama yoon néew ñoom li ñuy def man sama bopp laa tal essa maa ngi samay projet maa ngi samay affaire donc man loolu moom ëppal njëriñ quoi jee donc ñoom yàlla na yàlla defal jàmm defal ko képp kuy doomi aadama jee waaw projet yi euh, bon nañ xaar boo njaayee ci ay surprise yu bari yee ci ay featuring ci waa ay ay affaires yoo xamante ne mooy loolu nañ nañ xaar boo njaay ci lu bari nañ xaar boo njaay ci lu bari parce que affaire yaa ngi affaire yaa ngi donc mu ngi ñëw di nuyu sama sama label Sao The Business Lamine nekk fa nekk ku jàmbaare tu vois nekk koo xamante ne macha allah ku ku mën li muy def la yal na ko yàlla suñu borom sàmm ah. donc macha allah démb 3 heures du matin lañ lañ lañ lañ quitté studio 3 heures du matin lañ quitté studio donc moo fa nekkoon di liggéey et cetera donc yal ko yàlla suñu borom taxaw fay ko xolam bu baax a baax jàmbaar la. label boobu noonu moom mu ngi mu ngi ne mu ngi nekk Grand Yoff ah di jégalu gars yi ci pub bi bu baax a baax a baax jégalu gars yi ci pub bi aussi di wax ni fi ma nekk nii moom ah, ah, fii mooy Ndaté Couture fii sama ah, mag moo ko moom waaw fii fii fii fii fii Ndaté Couture la sama mag moo moom donc eh, di di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk place bi yal na ko yàlla suñu borom taxaw bu baax ah koo koy jéegu Malick ndeysaan di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu la famille Ndiaye comprendre nga donc di leen shout out bu baax di nuyu sama yaaya booy di nuyu femme aussi ah kooku jigéen ju man góor la yal na ko yàlla defal jàmm ndaxte ku baax la ku tabe la ah ku rafet xol la femme ku rafet xol la yaay booy yal yàlla taxaw yal na yàlla suturaal bu baax baax a baax a baax a gis nañu fi ñu teg te aussi yoxal ñaan yi rek yàlla baax na yàlla na la yàlla suturaal ah di nuyu sama yaay sama yaay moom mu ngi am mbuur ah mhm. di ko nuyu di nuyu waa mbuur yëpp ah di nuyu waa mbuur yëpp di leen shawdat di leen wax ni seen doom a ngi nii donc le meilleur reste à yaay booy amal jàmm bu baax a baax a baax man sa doom hmm? waaw kabu kabu mon ami sama ménagère kooku sa sa sa sa c'est kooku kooku sama lëb la kooku moo ma yar mhm. yee kebaa moo ma yar kebaa moo ma yar te aussi dafa sonn ci man te lu nekk lay daj ngir man yee lu nekk lay daj ngir man donc yal na ko yàlla fay xolam yal na ko yàlla defal jàmm may ko lépp loo xamante ne yottu na ko ci àdduna ak lépp lu muy séntu ci artisam yal na ko yàlla suñu borom taxaw nit ku baax la kooku kooku kooku amul morom de ah oh, kooku yal na ko yàlla defal jàmm kaabu mon frère kontaan naa grand bi wala vraiment kontaan naa di nuyu aussi sama rax Keba. Mhm. ah kooku sama artiste la sama sama star la dama ko koy wax mu may mais sama star la mooy li dëggu ci man comprendre nga moom moom moo moo yor waa Siko family. waa di di nuyu gars yëpp ah di nuyu waa Siko family yëpp gars yi ñoom baxaaw ñoom ñëpp maa ngi leen di shawdat di leen jox seen wàccuwaay di nuyu Keba bu baax a baax sama rax la en plus sama xarit la mhm. nit ku baax la nit ku oyof la mon fonce bu ragal dara man maa sa mag. Mbaye Ndiaye mooy sa mag yow bu ragal dara frère donc yàlla na la yàlla taxawu frère kontaan naa. <laughs> jërëjëf mbokk yi mi ngi noonu di leen jox dig daje ba beneen incha allah.